asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yëpp yi fi teew ak mbokki jullit yëpp yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu di leen sant di dalal mbooleem ñi fi ne ci turu sëñ Seex Mbakke mii toog di leen sant di leen gërëm ci teew gi ngeen teew ci bis bi ak teew gi ngeen teew ci màggal gi ci fan yi yëpp bokk yëpp teew nañu fi fa fa ba ci bisub tey bii ñu ñëw àndaat ak ñun lii te ku ci teewut ku ne xataayub ajjuma ji ak goo fi guddee moo tax teewoo waaye xol yëpp xam nañ ne teew na ndax ñoom ñëpp seen jëmu teew na suñ seex ne woon naa leen jot li mboolem ñi fi ñëwoon ñëpp suñ ngërëm ak suñ cant ci ni ngeen jàppe bis bi ak ni ngeen ko àndeek nun muy loo xam ne bokk gi ciy dundee rek te sëñ Abdou moom bokk gu dund neex ko lool ré réyoon fi moom lool ndax ku mu gis koo bokkal te xamoo woon ne da ngeen bokk sax dana la ko xamal laaj la ko ba mujj nga dem toppatoo ji li ngeen séq noonu la ko ak bokk ñore woon daa nga gis ñoo xam ne dañ naan xawma lu ma bokkee woon ak diw waaye sëñ Abdou Khadir koy laaj ba mujj ma gëstu ñu ne ma ndeke nii ngeen bokke kon kon noonu la ko ak bokk ñore woon kon bokk yëpp taalibi yëpp yi nga xam ne ñoo fi ne fan yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant it ñi ngax ay liggéey yoo xam ne dañ koy def fii ci kër gi dama koy tàmbali wax muy ñu def baax daat te Abdoulaat kam yi def eh, def ko fa ànd ak waa communauté rurale bi waa man damaa tàmm communauté rurale <laughs> rek la ànd ak waa commune bi ñu def ko fa eh, liggéey boo it àgg na ñi ngi koy rafetlu di ci sant Abdoulaat it bu baax a baax a baax ndax nam ko war a defee def na ci ak farlu bu baax ak itte moom laa doon waxtaan ak sëñ Cheikh léegi euh, kon nag ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax leeral na ma lépp ni ngeen ci sonne kon nag Abdoulaat ñu ngi leen ciy gërëm yaa ngi ko àndaloon ñëpp ak waa commune bépp ñu ngi leen ciy gërëm te di leen xamal ne liggéey boobu lu ñu soxaloon la te itteel ñu kon nag ginnaaw def ngeen lépp ngi leen di gërëm di leen sant ndax Baxdaad day dëkk bu sëñ Abdou Xaadir bu mu fonkoon te itteel ko lu ngeen fa def rek moom ngeen ko defal kon nag tawarkal ñi ngi leen ci sant bu baax di sant ma Matar Cissé ci jëf jim jëf ci Baxdaad moom it ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax di ko ci gërëm bu baax a baax a baax a baax te di ko ci ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndax la fa waroon ci wàllu courant wax dëgg yàlla def na ci item bu baax a baax a baax ñu ngi ko ciy sant ci turu suñ seex di ko ci gërëm ci turu suñ seex di leen di ko xamal ne lam ca def lépp leeral nañu ko ñoon ñëpp kon ñu ngi ñu ngi ko ci gërëm ñun ñëpp ci turu famille bépp te di ko ci ñaanal li ci des nag mooy ñu waxtaan tuuti rek sëñ Abdul Xaadir Mbàkke mi moom ni daf daa wax ne eh, eh, moom daf daa wax ne sa jamono da ko war a séddale yett moom neex nee na man sa noonu la noonu laa fas yéene def mooy lii ma ma xaaj ko ñetti xaaj te bi ci ëpp ma jox ko yàlla sa benn bi <coughs> li ci ëpp ma ma jox ko yàlla man dinaa <laughs> bi ci des ma jox ko sama digganteeg nit ñi ndax eh, eh, benn bi ma def ko waaw noppalu ndax nee na noppalu waaw bii ma jox ko sa ndax nee ba noppalu bu bu ko laajalee boppam day day day jël lu ëpp <laughs> nee na ba ba noppalu bo bu bu demee ba ba laajal boppam noppalu gi nee na fa nga bëggoon mu yem fa fa du yem boo ko dee defal sa bopp nag ci sa coobare nee na loolu du ci àgg bi ci des ma jox ko nit ñi nee na ñett yooyu noonu la séddale jamonoom kon lool ci ku ku gis xam na ne noonu rek la doon doxe la ca topp nag ñu waxtaane leen tuuti ci sëñ Tuubaa ay tënk yu am njariñ rek waaye tënk ba dana gàtt benn bi mooy sëñ Tuubaa dañoo jàngaloon ne képp koo ko kuy liggéeyal yàlla ba ak naagu bëgg laa dugg ni ki ab ab saalum saalum dafa ñëwoon fi moom ne ko dama yoroon daaray alxuraan fab ginnaaw bi mu fab donga yaag daara jaag lépp ñëw njaareem ne ko yoroon daaray alxuraan faa yoroon daaray alxuraan di fa jàngale waaye samay bokk samay bokk ak ñi ci waroon a jàppale kenn jàppale wu ma ci kenn jàppalewu ma ci léegi nag ma bëgg ma bëgg nag fab daara yi ak donga yi ak lépp delloosi la ko yow mi borom daara ji di borom alxuraan sëñ bi ne ko bisimilah dama jekki foofu nañ la wutal foo noppalu ba ngoon mu dem noppalu ba ngoon sëñ bi ne ana ki fi doon wax wàllug yi te jóge woon saarum nañ ko woo mu ñëw mu ne ko xataa isas tay asar rusulu wa dannoo annahum xat kusiboo lu ci tege mu ne ko jaahum nasruna waa ji daal ne day mel ne tey laa ko mos a dégg loolu mooy yonent yi ma ma a yónni man yàlla ñëpp ku ci ne dem nañ ba naagu ba yaakaar ne yokkat nañ yaakaar ne seeni nit weddi nañ leen jaa jaahum nasruna ndimbalul yàlla soog a ñëw <laughs> mun naa mu daal ni ah sëñ bi maa ngi door a dégg laay daal daal daay fabaat donga yàgg yëpp jataay bi ku sëñ bi waxee rek nit ñi jox nañ ko fa loo xam ne ba mu demee mën na koo yor lu yàgg dëkk ba mu ne moo leen yor ginnaaw bu ko sëñ bu waxee lii nga xam ne kon kuy liggéeyal yàlla ku ne ba nga demee ba metti ba ne damay bàyyi rek foofu la ndimbal yàlla yi ñooy ndax yonent yi sax noonu leen yàlla defaroon <coughs> bi ci bi ci topp mooy sëriñ bi mas naa wax ne daa am ko ko wax comme ko ko mas a wax ne ko damaa amuk bëgg sëñ bi ne ko wool bokk wool eh, sa mbokki taalibe yi fi ne yëpp ñu ñëw ñépp ñëw sëñ bi ne na ma leen di jàngal nga ne waxaatal li nga waxoon mu ne ko daa mu wax mu wax li mu waxoon am ak bëgg gu mu bëgg di ci ñaan loo sëñ bi sëñ bi ne ko dama leen di digal ku ci amatik bëgg bul woo la la koy may nanga nga ittewoo li la koy xañ foofu la liggéey ba ne boo fexee ba doo def li ko xañ rek li la koy may mën naa am <laughs> waaye ñu bari neen bu ñu ittewoo li leen koy may rek la ñuy ittewoo fàtte li leen koy xañ yàlla na ci yàlla dim yàlla na la sëñ am njàngale ma kon eh, eh, loolu lañ leen bëggoon a fàttali ci njàngaleem sëñ Tuubaa bu ko defee ngeen xam ne moom lu mat a wax ci àdduna ak ci àllaaxira xam xamal nañu ko ba ci topp nag nga xam moom laa koy tëjee mooy yéene sëñ bi dafa ma sa wax nit ñi ne leen na ngeen di fexe ba yéen ñëpp ngeen di rafetal seen yéene daal xam ngeen ki ñuy wax xodaar ñi jàng xam nañ ko boo demee borom maqaama dana wax naan ashamu min xudaar mooy ki gën a gaaf ci nit ñi mu ne leen li ko waral mooy moom dong moo amoon yéene ju bon waaye yéeneem ja ndax moo coroon naagak saaliwu te na moom dong moo jóg lëg cor te gis nga alxuraan ñoom ñëpp ca lañ alakoo waa réew mépp ca lañ alakoo moo tax alxuraan fa kaddabuuhu fa xaqaruuha daa ci la laafaale ñëpp ndax ñoom ñëpp ku ne amoon nga yéene yi boo ko jekkoo woon ni ko ko daar jekkoo da nga ne ni raye loola waral kon ñun ñëpp yàlla na nu yàlla may yéene ju rafet ndax lu waaye yéenee rek so mooy delsi wa kullu haamin wa antum bi xayrin wa salaamu aleykum wa